jiba boo xoolee tas assemblée bi président tas assemblée bi ñu bari nee nañu dafa def parjure ñu ne euh, sañ-sañam la constitution bi may na ko ko deful parjure dafay rappeler juste que ni assemblée amul sañ-sañu jàpp date bu DPG bi loolu leen bëggoon a xamal pour corriger leen tout juste yow sa jàngat lan la dafa def parjure dafa war kàddoom comme ni ko gars yi waxee du sañ-sañam lan nga ciy jàngat ci li nga wax ni lenn rek laa ci mun a jàpp ko ah. sañ-sañam la il a le droit de dissoudre hein. on n'en mm. disconvient pas mm-hmm. mais ndax il a fait parjure parjure la mm. waaw parce que moom euh, ba muy taxaw di jël décret naan parce que le décret en question c'était quoi lorsqu'il convoquait l'Assemblée nationale en session extraordinaire mm. euh, l'Assemblée devait statuer sur trois choses c'est-à-dire la loi de règlement de 2022-2024 pour le compte du ministère des Finances euh, loi de règlement qui concerne le ministère des Affaires étrangères et la DPG mu jël DPG ko ci ginnaaw léegi ça Mais pourquoi te dire qu'en fait c'était fait à dessein, ne serait-ce que juste pour euh, amuser la galerie et tenir les gens en haleine, ne pas aller vers cette DPG-là Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, on n'a pas un président, on a président, on a un président auprès du Premier ministre. Parce que bon, le plus Premier ministre, mooy mujj am lépp lu président wax kenn du ko kenn kenn du ko kenn du ko gis donc ça veut dire que sa parole ne ne vaut absolument rien du tout parce qu'il ne même plus euh, d'être le dépositaire la République Parce que es, c'est gravissime de voir un président qui se dédie à tout bout de champ. D'ailleurs, même ça nous rappelle quoi Ces propos d'alors. la mu daan wax démb euh, ni ab njiit boo demee ba sa kaddu jaratul door sa doom yow matatoo njiit loolu moom la dab. Et d'ailleurs, même il n'est pas le seul. Moom ak son premier ministre aujourd'hui le véritable adversaire c'est les VAR maanaam seen waxi démb moo leen di dab tey. Maintenant pour revenir par rapport à cette ko. d'accord nga que question de bon sens et Parce que moi, je suis de la nouvelle, euh, nouvelle responsabilité incarnée par Amadou. Parce que n'oublions pas que cette assemblée bini. ñoo demoon lëkkaloo c'est-à-dire seen biir maanaam les députés de Benno Bokk et ceux du PDS ñoo demoon euh, voté une loi euh, de report des élections et aussi euh, dëggal ni comme quoi Amadou a essayé de corrompre des juges ba si un juge du conseil qui a pu mm-hmm. mais loolu par la suite ba la procédure judiciaire Euh, enclenché wu ñu gisee cette procédure a été stoppée après la suite c'est quoi ah, rien c'était du pipeau donc c'était juste pour combattre un homme maintenant pour revenir par rapport à ce parjure là comme il l'a dit il y a du parjure dañu donc tey euh, c'est grave aujourd'hui d'avoir quelqu'un à la tête de ce pays cest grave je vous dis parce que tey si on n'a pas un président qui, respecte sa parole est-ce que demain su ma par exemple je vais engager euh, le Sénégal le comment dirais euh, développement industriel ou infrastructurel et tout ma di ko gëm du ma ko gëm parce que xam ne déjà ils n'ont pas de vision donc ils sont sur l'accessoire ci accessoire lañu nekk ñoom muy moom ak premier ministre am di tâtonner di xool Sénégal métti gi mu métti yow yëg nga ko mën yëg naa ko donc tu prends par exemple le cas de la sortie récente de, du FMI euh, qui parle des perspectives qui restent quand même difficiles les perspectives donc au niveau de la niveau de, de, de la croissance euh, agro-industrielle, au niveau des mines et tout. Donc la croissance, elle est trop, trop, trop lente. L'autre FMI là. Donc face à ces difficultés-là, euh, quelle devrait être la posture de nos dirigeants Tay le Premier ministre est allé à chose à Tuaon. Pour un rien, il est allé à Koloban pour euh, soutenir, euh, soi-disant, les marchands ambulants, disant que lui n'était même pas au courant euh, d'un tel déguerpissement. C'est chose qui booy yaa ngi dee ci géej gi te foofu noonu booy yi di dee noonu mbuur gi dans un passé récent foofu la demoon toog ci gaal ne booy yi di dee nii yëpp c'est la faute du régime mais boo gisee mënoo fa dellu parce que amul sañ dellu fa lu tax demu fa il devait y aller fii ba ñu nekk opposition ñoom lu tuuti nga gis leen ñoom ñëpp ñu ne deuil national ils avaient même pas la ils sont même mais ils le faisaient c'était de leur c'était dans leur rôle ils étaient dans leur rôle On a vu des morts, c'est-à-dire des immigrés naufragés. On a vu des accidents de route où des personnes sont complètement calcinées. On a vu des accidents de route, c'est des véhicules euh, qui, font du n'importe quoi, je m'excuse du terme. Mais au lieu qu'ils prennent, c'est ce qu'une journée pour prendre, c'est-à-dire proclamer une, une, journée de deuil national, ou bien, défouillons Parce que nous léegi nag moi je me ah, dis mais mais mais pourquoi nga bëgg jàpp ni ñoru leen d'autant plus que ministre bi nga xamante ni moom mooy waaru euh, tàggat yaram mooy soxna Khady Diène dem na. Mhm. Euh, Maimouna Dièye. Mhm. Ah, bi yor affaire famille. yor njaboot gi dem na njaboot gi dem na. Mhm. président Bassirou Diomaye Faye si boppam taxaw ci tefes gi def déclaration dafa jàdd. mais pourquoi ngeen bëgg wax jàdd dem fa a taxu kaa jóg. non mais attends mais xam nga fan la jógee la jógee. Ah, mais laisse-moi parler dafa dem ba Kaolack. bu jógee Kaolack jàdd fa. waaw mais mais. Soretti non Soretti dafa ñëw Soretti ça da doon jógee Dakar. mais jaar fa ak dem na fa lan mooy différence. en fait moi je me dis en fait c'est je te dis l'accessoire loolu c'est secondaire pour eux. bu dee da ko ñoroon dëggantaan day jógee Ndakaaru gii bañ koy ba mu yëgee ni affaire bi am na te mu nekk ci mim réew. le lendemain il se lève le matin sans protocole aucun avec une série de une garde rapprochée mu dem foofu dem masaw leen mais da nga bàyyi sol sa grand boubou dem parce que tey jii kuy dem ci tefes noonu ngay solo grand boubou la sol tu vois kii la jógee. kaw la mort. donc. côté boobu mais ah à lañ fi nekk mais nañ def mais ces six dix ans. Mhm. ce ciment que nous traversons ressemble à dix ans mhm. yow mi yaa ngi koy yëg maa ngi koy yëg keneen mu ngi koy yëg parce que pourquoi je te le dis là je t'ai parlé de la note du FMI mais parce que rien ne bouge mhm. parce que c'est tey boo demee par exemple dans le secteur de la construction que j'ai évoqué tout à l'heure il y a tous les corps de métier qui y sont plombier baa ci biir maçon baa ngi ci biir électricien baa ngi ci biir le carreleur mi ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir nga nga bloqué tout dem leen toogi seen kër du ma ci yem demal port 700 contrats ont été arrêtés pourquoi des humours politiciennes nga naan non je les congédie et derrière tu fais quoi tu fais du recrutement de, clientèle politique nga ñëw fii Lonase dont le dirigeant est un ami à moi on est des camarades de promo à la fac mu ñëw ki daan am salaire u x mu ñëw wàññi x mois parce que là tu veux juste assouvir l'autorité de ton chef euh, qui est en en euh, réalité le PM mais en, en officieusement c'est lui qui dirige ce pays mais où va t fan lañ jëm ñun Sénégal fan lañ jëm. avec mhm. ces gens là léeg-léeg bon euh, Aliou nga baal ma. Euh, bu ñu ñëwaatee un peu ci euh, ci dissolution wu assemblée nationale bi. maa ngi gis Maodo Ibra Kane ni population bi dañu war a sanctionner ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye. Maodo Ibra moom mooy seen communication ñoo bokk. mooy seen communication. ba oui en fait c'est lui qui chapeaute la commission. lan moo tax moom hmm. communication bi. kan la attaqué Maodo Ibrahima Kane non mais attends à chaque fois dañuy gis day tirer ci régime bi mais leader am. en fait du réagir nous on fait ce qu'on appelle le leadership éclaté. Mm-hmm. c'est-à-dire autant que notre chef peut s'attaquer à un régime. Mm-hmm. autant que moi je peux m'attaquer à un régime autant que quelqu'un d'autre peut le faire. du ko def. su ko soobee mu def après moom day ñëw ñu ni non Amadou Ba. non mais c'est son style ah. non attends man ku nekk dama lay respecté ak sa style. Mhm. c'est son style. mais say yow boo taxawee. mais su nañ leen bàyyi ñu liggéey. c'est son style en fait mhm. c'est son mhm. style. aujourd'hui pourquoi je dis. pourquoi je dis euh, par exemple <clears throat> ni moom. du attaqué mais ku xool Amadou Ba. il n'est pas dans ça même ñun ñi di attaqué on le fait avec mesure. parce que duñ ñëw taxaw di attaquer bu tout bout de comme ñoom nañ ko daan defee. c'est-à-dire dañ koy dañ koy argumenter teg ko ci ay faits c'est du factuel. on se lève pas juste pour s'attaquer sur des individus. bañ koy laajee lan la wax man laata may wax ci gestion au gouvernement. damay xool décret bu génn damay xool un projet clair bu ñu ma définir ne ma ñii fii lañ bëgg a jëm. boobaa ma doot cee àddu mais ñun on peut ne pas attendre. parce que tey moom peut-être il n'est pas. du créer désordre ci la wax nii. ba tey je ne digresse pas maa ngi ci sama waroon nekk ba léegi. Mhm. je n'extrapole pas. ñun la ñuy def mooy gis leen ñu ngi jàdd yoon. Mhm. ñu rappeler leen allor l'ordre bi nga fi toog ak léegi ñoom bi ñu fi toog ak léegi on tous les jours ay njombe rek lañ dëkkee ci ay njombe. tu as parlé tout à l'heure de la mhm. job tu dis que il est un des nôtres. mu dem aéroport ñu arrêté ko ne ko non pour génn amul benn gestion justice bu ko ko notifié loolu mais jaay doole la ñoom lu ñu doon woote donc lan régime fayantoo la mais je te dis pris ce pays ils l'ont Je si pense qu'en face, c'est des peureux, ils se trompent lourdement. Mm -hmm. Nous, on a fait le mouvement syndicaliste universitaire. Moi, j'habite en Casamance. Il faut que je fasse politique. Hein. Mais je me dis que ce gars-là, il ne mérite même pas ma confiance, il ne mérite même pas d'être mon chef à moi. Moi, je top dans top. Parce que le meilleur, c'est un cadeau, donc je ne accorder une importance quelconque. donc pour revenir par rapport a ça jaay doole moo fi am et là les Sénégalais vont se dresser devant contre loolu moom maa la ko. Mm-hmm. mais mais mais euh, dissolution assemblée nationale. Ah, mu nekk yéen lu leen arrangé d' mm-hmm. parce que occasion la bu bu baax pour pour yéen ngeen defaru mën a dem xëy na mën ngeen fa am. ñaar bu ñett député wala da nga xeeb ñaari. non mais attends mais mais Ousseyn faut être sérieux quand même. damay <laughs> mais. mais 55 pour cent la ñu génne pour cent même pas 6 mois. Ousin dafa données yi pour vous pensez que mën na fi changer nit ñi vite fait nii. Ousin je vais t'expliquer une chose. Mhm. et c'est ce que je dis souvent beaucoup de gens. Mhm. c'est-à-dire xeeb Amadou Ba mooy xeeb sa musiba. Mhm. xeeb ñu ñun mooy xeeb sa musiba. Euh, je te raconte juste une anecdote le le lancement de la journée du